Euh, mbokk internet yu Rio Plus dal nag ak jàmm tey nag euh, di bésub tamxarit Achoura ñu koy euh, màggal ñoo ngi fi nekk ci Colobane Guy Mouride ñëwoon rek seet si suñu benn moment boo xamante ne day yëngu ci wàllum transformation de céréales donc ñu ñëw seet si ko xoola cere ji ñoom naka lañ koy defaree naka lañ koy commercialiser waaye tamit jëm ci askan wi laaj leen tey ji bari na ñi nga xamante ne mooñatuñu mooñ amatul ku ci nekk ak recours bi ngay jël ñi dañuy commande cere ñi commande leneen ak leneen donc tey ji ci loolu lañ ñëwoon fii ci kolobaan Guy muri nag ngir euh, xoolal leen ana naka la mbir yu demee ngeen topp ñu ñu wax leen lépp loo xamante ne mi ngi ci biir tamxarit bi ak cere ji nuñ koy defee ak ñi nga xamante ne dañuy taamu di def seen commande bañ toog di mooñal seen bopp topp leen ñu wax leen lépp lu ci nekk. Euh, mbokk internet yu Rio Plus comme niñ leen ko doon waxee ñu ngi fi ak soxna Fatou Kiné Faye di yëngu ci wàllu wàllum euh, transformation ñu nar amal waxtaan ak moom jëm ci li yëngu muy formation transformation euh, transformation ak jëm ci wàllu cere ak yu nu mel waaye tamit euh, mu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy euh, tamxarit bi ñu nekk ak nu muy demee soxna si waaw <coughs> maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen ziyaar ci bés bu tedd bi nga xamante ne tey jii mooy bésu tamxarit ngeen ñëw fekk ñu fi fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xamante mooy suñu liggéey di wàllu transformation céréale locale euh, waaye fas yéene waxtaan ak ñun aussi ci li nga xamante ne mooy euh, tamxarit bi maanaam ci cere yi maanaam mën nañ ne démb ak tey euh, niñ ko daan doxalee. Mm-hmm. waaw maa ngi tudd Fatou Kiné Faye nekk présidente kuréel gi lawal làkki réew mi mooy unité bi ñu nekk unité bi nag dañ ko tuddee coono du réer. maanaam lu waaye di sonn lu nekk rek euh, bu yàggee njëriñ dina la ci fekk te mooy li nga xamante ne moom la def tey jii. Mhm. Mhm. waaye ci feet gi liggéey bi euh, gis nañ ne dina jëm kanam dina gën a gën a dox ndax euh, boo seetloo. bu jëkkoon li nga xamante ne moom la jigéen ñi daan def euh, léegi jigéen ñi defatuñ ko maanaam bu jëkkoon dañ daan euh, soqi dem woli ñëw mooñ tey waaye loolu gis nañ ne loolu bareetul xaj na ñàkk jot gi la wala jigéen ñi ci bari tayel la ndax léeg-léeg da ngay dégg ku naan dama sawaruma ci mooñ wala dama tayee mooñ wala li nga xamante ne mooy unité yi dañoo bari léegi ndax tey jii li ngay jël sa temps nga toog di tay di di di mooñ aka loolu tey jii nga ñëw seet benn unité de transformation comme bu kër maire ne nga ñëw mu jaay la sa cere nga yóbbu mooy gën a noppale waaye bu jëkkoon ni ko maam ñi daan defee bokkul ak léegi. Mhm. waaw li tax loolu amatul moom laa wax sànq ma ni jigéen ñu ci bari euh, surtout jéeg ju ndaw ji temps yi ñu toll da ci am ñoo xamante ne dañ naan mënumaa mooñ. wala damaa tàyyeel a mooñ loolu moo koy indi ñàkk mën gi ak tayel gi ndax jigéen du ne mënuma dara daf ko war a jàng ndax man mi boo xoolee euh, maa ngi jànge mooñ bi ma fa ba ma sëyee laa jàng mooñ boobu moo ko dul woon def kon defe naa ne ba léegi damay naan damay damay wut ku ma ku ma ku ma mooñal mais léeg-léeg dina am na gàllankoor yuy indi loolu xale yu jigéen ñi duñ mën a mooñ seen wéyjur yi ñoom ñooy def lépp suñ dee def lépp nag bàyyi leen ñoom xëy na ñu féete ci njàngam wala ñu féete ci leneen dañuy dem ba dootuñu mën a duñ duñu mën a mooñ dañuy sëyi sax duñ man a mooñ loolu moo ko indi. Mhm. waa tam xarit gi dañuy am ay commande yoo xamante ne dañuy ñëw di jënd si euh, léeg-léeg aussi euh, du am commande da ngay jékki rek nit ñëw ndax am nga cere ma ni ko waaw mu ñëw ñu jaay ko. dina ñu jaay aussi ci internet parce que lu ñu defar rek ñu dañ koy publier. dañ koy publier pour wan ko askan wi ñu xam ne ñun ñu ngi liggéey lii tey yemuñu rek ci cere ji tey nag mooy bisu cere moo tax ñuy wax ci cere ji mais li ñuy liggéey euh, bari na ndax boo xoolee ci bibliothèque bi gis nga liñ fi rangé li yëpp kon dafa bokk ci lépp loo xamante ne mu ngi jëm ci céréale locale ñun dañ koy liggéey soo soxlaa sànqal di nga ko fekk soo soxlaa araw di nga ko fekk sungufu xale li ñuy wax ruyu xale farine enrichie boo ñëwee di nga ko fi fekk sungufu ñebbe boo ñëwee di nga ko fi sekk ak li nga xamante ne mooy euh, mboq mi loolu yëpp nekk ay produits yoo xamante ne ci suñu dëkk bi lañ ko lañ ko lañ ko defaree maanaam dugub ji fi la ñoree fi lañ ko defaree liggéey bi aussi fii lañ ko defaree waaw mu nekk loo xamante ne ba dëgg yàlla lu am solo la ci ci ci ci ci doomu aadama yi. Mhm. waa métti na ndax mooñ moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ni doole da koy def. waaye dinañ la jàngal technique boo xamante ne mën ngaa mooñ léegi ñaari paani euh, dugub maanaam ñaari paani sunguf te sax doo ko yëg te bu jëkkoon ñaari paani soo ko yoree mën nga ci nekk di ko mooñ fii ba ngoon léegi nag technique bi ñu lay jàngal mooy tax léegi mën ngaa xëy léegi daal di mooñ sa cere balaa jant beesoo nga tey ko waaw. waaw ki nga xam ne dafa dafa dafa commandé mu gis la ci internet mu commandé la kooku mën naa sori mën naa jege su fekkee dafa sori dañ ko koy livreel dañu wut livraison boo xam moom mooy jël dem yóbbul ko wala moom mu yeble ñëw jël si ko su dee ku jege moom mooy ñëwal boppam fekkee ku jege la gis la ci internet bi dina ne dina la laaj kër gi parce que di nga def sa adresse ak sa yëpp su ko defee léegi ñoom dina ñuy ñëw ñoom ñooy ñëw seen bopp jëndal seen bopp am ñeneen ñoo xam ne itam dañuy romb sax gis ñëw fexe ba ba laajte ba am waaw. Mhm. waa njëg du jafewul ndax euh, kilo cere bu wow bi parce que xam nga cere ji suñ ko defaree dañ koy weer trois jours ba mu wow koŋ ba boo amee benn kilo cere boo ko kaasee ba teyaat ko mën nga ci am kilo liibar kon kilo boobu du bokk ak cere bi nga xamante ne da nga koo tey léegi daal di koy jaay kilo boobu ñu ngi koy jaayee mille cinq cent su fekkee cere bi nga xam ne da ko koo tey léegi muy cere bu tooy bi boobu mën nga ko am ci mille francs loolu mooy njëgu njëgu kii bi njëgu cere ji. di leen remercier bu baax muy Rio Plus ak Jokkoo FM wala Jokkoo TV lañ ko tudde wala Jokkoo FM Jokkoo FM euh, ak Rio Plus di leen remercier parce que lii dafa nekk loo xam ne lu am am solo la ndax li tax mu am solo am na ñoo xam ne xaj na jege nañ la sax te xamuñu ne lii yëpp mu ngi fi. Euh, loolu moo tax dañ leen di remercier ci initiative bi ngeen jël ndax dinay am ñuy def ay émission mais dañuy dem fekk ki nga xamante ne moom mooy def cere ji euh, fa mu koy defaree yooyu yëpp filmer ko ba ca togg euh, ñeex baag yëpp ñu filmer ko loolu am na solo mais fekk unité de de transformation yi ñu filmer leen waxtaan ak ñoom seen li nga xamante ne surtout seen i jafe-jafe parce que loolu aussi war nañ ko ci mën a defaale parce que dafay am ay jafe-jafe. yoo xam ne dañ koy am parce que euh, jafe-jafe yi léeg-léeg njaay mi mun na yéex parce que tey ji bu du woon ak li xew léegi nga xam ne commercialisation bi ci internet bi mun ngaa defar lu yàgg njaay mi day yeex parce que internet bi mooy siiwal li nga xamante ne moom la ñuy def moo koy siiwal parce que ku ñu mel ne yéen aussi da di publier keneen publier bu ko defee dafay gën a yaatu jafe-jafe yi loolu mooy li ci ëpp commercialisation bi dafa xaw a yéex mais nag pexe yi ñu ngi ci mooy li nga xamante ni moom la ñuy def tey jii nii ndax lii buñ si jogee def naa dinañ gën a am ay clientèle yoo xamante ne daañu mën a xam fan la euh, kër na fay nekk merki na fay day jaay li day jaay li xëy na am nañu ko xam mais am na ñoo xam ne xamuñu ko waaye ñu ngi ci lii bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy jëm ci euh, internet bi ñu ngi ci siiwal li nga xam ne moom la ñuy liggéey euh, Jokko FM ma di leen remercier bu baax ndax samay partenaire lañu ndax dama bokk ci ñi sos Jokko FM wax dëgg yàlla euh, depuis ca oto ba maag ñoom la ba léegi si aussi maag ñoom la ndax fu ma bëggee def émission aussi damay dem def sama émission kon ñoom aussi dama leen di sant di leen gërëm ndax euh, wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bi ñuy def daal ci suñu diggante ba nga xamante ne lépp lu ñuy def wala lu ñu bëgg a wax dañuy yaatal pour ñu ñëw def ko ñu di leen remercier Rio Rio Plus aussi ñu ngi leen di remercier di leen encourager parce que lépp dafa nekk ci loo xamante ne dangay jàpp rek bañ a bàyyi gëm sa bopp nit ki bu amee passion defe naa ne lu mu bëgg a def dina ko def kon maa ngi leen di sant aussi yéen ñi nga xamante ne yéen a ñëwoon doon def si émission bi di leen ñaanal bu baax a baax yéen tamit ngeen dem ba yor seen yëfi bopp parce que euh, loo doonul sëriñ euh, taalubeem doo doon sëriñam yàlla mën na ko jërë ngeen jëf. Maguette Ndiour laa tudd. waaw xam nga euh, loo loo xam ne yow dafa xëy rek ñëw ci yow noonu nga koy mën a jàppee mais kër ñi daan togg cere tamal seen bopp cere am leket am am am euh, tame mën nañoo bañ a commenter waaye tey dañuy dugg ci kër leket amu fa cere euh, lay lii amu fa leket amu fa tame amu fa da dem ba lii lay gën a yomb ngay sibati di wuti leket ka def leneen ak leneen ak yeneen. dem jëndi cere moo koy gën a yomb cere ji pour benn bés bi rek nga ko doyee mais ñi daan cere def la fi maam yi bàyyi woon ba léegi ñu ngi tay raxas seeni leket bu mu weex daal yow fajar mooñ bu dee cere ju forox nga bëgg nga teg ca naajoo muur boo añee ba pare tay mu forox toll booy tay koñ bi yëpp xam ne kër gee tay ñu ngi tay cere mais xale yi léegi mooñu ñu mënatuñoo mooñ da ngay dugg ci kër fekk fa nangami jeeg mais mënuñoo mooñ nga yenu sax leket kër kër kër sa sunguf kër gu ne nga dugg fa ne mooñal ma dem jëndee ko gën a yomb loolu bokk na ci loolu dong du leneen léegi nit ñi ñoo jël seen bopp def leen ay leneen i tubaab ak roy ak yeneen ak yeneen ba yenn yu bëri mënuñ man bi may mën a mooñ fukki at ak juróom am ndax bëgg gu ma bëgg cere fukki at ak juróom fekk na ma mooñ ñi ma dëkkal bu ñu déggoon tey sama wax ji bari na ci ñoo xam ne xam nañu man sama cere mooy lan mais fii ma toll nii nii nii nii nga xam ne yorootuma kër ga surga laa ndax jeeg jaa ba démb dañ na lu ñuy togg xale yi ne dañ togg soos ba daaw soos dañ togg man maay def léeg-léeg bu ñu teree ba pare ma jut sama ndawal wut sama lool togg sama cere maak sama borom kër nit ñi léegi ñoo ñoo tayal ñoo ñoo ñoo ñoo rey seen bopp ba yenn yi bari mënatuñ ko. waaw yenn yu bëri mënatuñ ko loolu bokk na ci loolu dong la kër goo dugg fekkoo fa leket fekkoo fa loolu borom fu muy tam xarit gi day tax nga dem jënd ji leket ak loolu mënoo mooñ ku mënul mooñ du togg cere loolu rek la. Cheikh mbub waaw. njaay mi dafa yeex fi mu toll nii ndax nit ñi ah ñu ay nag ay cere ginaar la ñuy def. <laughs> toggatuñu ndawal mooñu ñu cere ah soos ñii soos lañuy togg. njaay mi ah mais njaay mi moom sañ ta bañ la ndax fii moom yàgg nañ fi yaa nag def nañ fi ay at chaque année moom dañuy waaw risqué rek andi ndawal jaay bu jeexee baax na bu jeexul ñu denc ba subaa ñu jaay waaw. tong-tong yi waaw gis nga nag ak kii nag yi ñuy rey si koñ yi waaw xaaral tamit joolaay tamit ah. nag yi ñuy rey si koñ yi mooy waral njaay mi du demee noonu ak ñi nga xam ne dañuy denc seen yàpp tabaski ba tam xarit waalaay mbokk internet yi comme niñ leen ko waxee woon lii lañ leen indiloon demal nañ leen ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy def transformation ci wàllu cere ji wax nañ ñu naka lañ koy defee ana lan moo tax léegi jigéen ñi mooñatul waaye tamit seen liggéey jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel ba ñu jógee foofu dem nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay ndawal ñoom it mu mel ne tamxarit bi gisatuñ ci seen bopp ndax jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ah, di jënd ginaar yeeg ah, li nga xamante ne mooy tong-tong yooyu yëpp indi na jafe-jafe ci li nga xamante ne moom mooy seen liggéey donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox jig euh, daje beneen yoon waaye di leen ñaanal tam xaritu jàmm